salaamaaleykum dama doon def vidéo bi pour que ma setal sama der que ne man nekkul man maa bindu vidéo bi ne man maay doomu sëñ Bass Abdou Khadre wala dara déedéet faatu laa tudd sant si la di taalibe Serigne Touba nag di taalibe Serigne Touba xawma lenn lu dul xëy dem wàcc liggéey toog sama kër dugal naa sama vidéo comme ni ko xale yi di defee ñu récupérer vidéo bi dem dugal ko YouTube daal ciy bind man maay doomu sëñ Bass Abdou Khader man maa ngi ni toog nekkuma doomu sëñ Bass Abdou Khader. ba pare maa ngi ciy jéggalu ñëpp du ci jéggalu yoonu murit que ne man defuma ko yëguma tinuma maa nit ñi ñoo ci yam képp képp koo xam ne am nga ci lenn lu la naqari maa ngi sukk di tuub di jéggalu te xam ne dañ ma tooñ def li ñuy def mais nekkul man